voilà may nuyuwaat auditeurs yu Rewmi FM Dakar ci ganuk euh, bés bi version wolof bi tey jii ñu dalal euh, Pathé Mbodj Pathé mbooj nekk analyste politique Pathé mbooj euh, maa ngi lay nuyu. Ah, soxna Moreau maa ngi lay fay. di ah. nuyu sa déglu yëpp. voilà Pathé Mbodj euh, déjà dañuy ñëw ci verdict bi nga xam ne am na démb euh, di procès bi doxoon ci diggante Mame Mbaye Niang ak euh, leaderu Pastef bi di Ousmane Sonko verdict bi six mois avec sursis lañu daan Sonko forcément tamit aussi mu war a fay Mame Mbaye deux cent millions bu fekkente ni fayu ko dañ koy jël yóbbu ko ci kaso bi ban lan mooy sa xalaat ci verdict bi wàcc démb waaw loolu ñu tëral démb mooy li xam ne ni moom la yoon maye te muy loo xam ni moom lañ naan gis si lu deme ni eh, li yóbbu Ousmane Sonko si mbaxana doon benn euh, moo doon li gën a néew ñeenti weer ba euh, ñaari at moom defal nañ ko lu gën a néew lu gën a néew naam biñ ko njëkkee jugé defoon nañ ko ko ñaari weer waaye ñaari weer yooyu dafa mel ni méngoowul ak li yoon tëral kon li am démb moo gën a nuru li yoon tëral euh, mooy ñeenti weer loolu tamit euh, defe naa yoon yaatu na foofu ba pare ak euh, ak daanu xaalis diñ ko daan loolu daal mooy li war mën a am xëy na ko njëkkee diñ njëkkee layoo xëy liñ ko doon wax te déggu ko Mm-hmm. bi ñu war a bi ñu taxawaatee démb tamit am na leen lu ñu ko wax ndax ñeenti weer wala juróom benn weer yoo xam ne doo ko tëdd loolu defe naa am na tamit euh, nuñ ko mën a jàngate maanaam loolu daal moo ëpp solo si li am Mhm. Euh, kon euh, li nga xamante ni moom mooy euh, verdict bi avant procès démb bi gis nga ni Ousmane Sonko def na benn déclaration ci déclaration bi moom mu ngi wax ni dootul collaborer avec la justice sénégalaise parce que amul si ñoom confiance muy ci procès bi ñu doon amal démb Mame Mbaye Niang muy ci procès bi nga xam ni moom la ñuy amal ci 16 mai bi ñu daal di jëm le fait que Ousmane Sonko déclaré carément ne dootul wuyu ji justice sénégalaise loolu ban jàngan nga si am. xam nga li gën a yomb mooy mu tekki ndombo tànkam maire mu tekki ndombo tànkam ni man euh, Sénégal gi laa juddoo. Mhm. mu wuti feneen fu mu dem. Mhm. parce que bi mu juddoo ba léegi euh, fi mu jaar ba léegi Sénégal moo ko fa jaarale yoon moo ko fa tëral muy ci ñuy juddoo. muy fu ñuy jàngi muy fu ñuy liggéeyee boo demee nag ba mag li ñuy wax ni wañ sa gel ni gisuma weer bi bu koor gi jotee kooku moom ku nekk neex waaye xam na loolu moom du wax du wax mooy biñ ko waxee mbirum euh, ma mbay dem na wuy ji mm-hmm. ko waxee mbiru soxna soosu aji saar mm-hmm. dem na wuy ji muy instruction muy bu ñu la bu eh, yoon daf lay woo nga ñëw taxaw di la jiw wax na lii dem na gendarmerie wax na fa lim mu fay wax def na fa li fay def ba ñu dindi eh, muuraayam mm-hmm. dem na tamit ci diggante bi eh, ji ci juge d'instruction bi wax fa lu muy wax bu toogee ba tey bëgg ni gëmul yoon bu toogee ba tey ni gëmul euh, Sénégal na wax ni gëmul boppam mu gën a yomb daal. Mhm. Euh, fi ñu toll ni avec euh, six mois avec sursis ñu bari ñu ngi laam-laamee nekk président Ousmane Sonko du mën a bokk ci élection présidentielle bu deux mille vingt quatre maanaam dafa perdre li nga xamante ni moom mooy éligibilité am loolu ban jàngat nga si am. waaw loolu tamit mi suñu kanam. xam nga fi mu nekk nii kenn mhm. xamul. Mm-hmm. kuy nekk ak ku dul nekk. Mm-hmm. Macky Sall mi nga xam ne ni sax moom tamit mi ngi raam jëm si nag bi yaakaar ni nii mun na bañ a bokk ak ñëpp ñi taxaw te te te teg seen dënd ni dañoo bëgg a bokk kenn xamagul kuy bokk kenn xamagul ku mun a bokk wax naa la sànq si njëlbeen. Mm-hmm. ñu ne bi ko njëkkee taxawal si kanamu buur fi mbaxana doon benn. liñ ko daan dafa am lu mu doon wund. xëy na moo ko jëliwul dañ ko daanoon ñaari weer mhm. méngewul ak yoon dañ mhm. ko daan démb tamit bu méngoo ak yoon tamit méngoo bu bu neex la mhm. ndax mettiwul ndax mënoon na gën waaw ah, du woyof moom méngoo ak yoon waaye ci liñ koy jàngat bi mooy différence bi liñ koy jàngate mooy wax nañ ko biñ ko njëkkee bi mu njëkkee layoo ne ko lii ñu lay daan am na lu ñuy bëgg ci yow te boo déggoo Barthélemy li mu wax démb mhm. xam na ni eh, yoon bu amee tamit war nañu mën a fexe ba yoon bi eh, méngoo ak li xel mën a dégg mhm. li xel mën a dégg démb mooy dañ ko daan méngoo na ak yoon waaye oyof na tamit te xëy na dafa am luñ ko sas luñ ko sas xëy na Barthélemy doon na ko dox mhm. xëy na Barthélemy doon na ko wax mhm. am na lu mu si wax démb mhm. am na lu des waxtaan bi ñu waxtaan bi ñu wootee jotagul ah xëy na fii ak waxtaan bi jot moo am lu mën a soppeeku par rapport à situation euh, tey jii est-ce que jotul Pathé Mbodj ci sa xalaat Pastef out euh, un numéro euh, un plan B comme que jëmu Ousmane Sonko bi actuellement ça pose problème ak daan bi ñu ko daan ci procès en diffamation bi ak tamit procès bi koy xaar ci chambre criminelle ci 16 mai bi est-ce que jotul mm-hmm. Pastef out seen plan B bu fekkente ni candidature Sonko dafay poser problème ñu am keneen ku ñu teg Mhm. am na euh, lu doon rumandaat ci biir Pastef. Mhm. mooy waaye bokkul ak Pastefu Sénégal Pastef bi nag euh, bitim réew. Mhm. ñu bare toog nañu wax ñu daal xëy na tënkoon nañu nit suñu nen. ndax mu bu ko déglul bu baax nen bi de dégg nga parce que nen bi mooy liñ ko waxoon liñ ko koy liñ koy taal. nañu nit suñu nen pour mu yóbbul ñu ko présidence ni Ablaye Faye jëlee woon drapeau bu ndaw ni moom lay yóbbu présidence bu PDS gagné. 74 mm-hmm. te yóbbu na ko fa en 2000. Mm-hmm. nit kooku nag euh, yàlla def na toj na suñu nen kon nañu wut keneen. loolu moom yàgg nañ ko wax bi ñu bi mbir mi feeñee. Mm-hmm. ba lu metti loolu am ba ay xale eh, ñàkk ci seen bakkan. émati waaw. am na ñu wax ni daal xëy na war nañu wut beneen pexe. fii sax ci biir euh, Sénégal amoon na jamono bi ñu doon wax naan xëy na Xalifa bu fekkee ni Sonko mënul dem. Mhm. muy beneen euh, muy am pexe waaye li am solo mooy Sonko dafa fexe ba nga xam ne ni kenn dootul dara. Mhm. Pastef moom la. opposition moom la. Idriss Seck waxee ni mooy chef opposition bi sax am na tontu bu ko tontu. Mhm. boo génnal ma génn ñu xool. waa yow Idi waaw bi Idi waxee moom mooy le chef de l' opposition daf ne Idi na génn moom mu génn waaw mhm. waaw kenn dootul woon dara mhm. lu dul moom mhm. xam nga ko doxee doxale noonu dafa ne yow rek yaa fi mën a sës léegi nii cëppaandaw gi mi ngi nii ndax euh, bu fekkee ne aji affaire aji Sarr passé na bu ñu fàtte ne am na yeneen am na ñuy taal dëkk bi te euh, am na fu ñu xool am na fu ñu joxoñ am na yeneen lu fi weesu yu fi amoon mois de juin. Mhm. deux mille vingt deux ah, am na feneen fu ñu xool loolu yëpp dañ ko war a leeral xëy na bu yooyu yëpp leeree xëy na peut-être Pastef war na wuti wuti leneen waaye de yaakaaruma mu nekk ci biir Pastef yaakaaruma mu nekk ci bitim Pastef. Mhm. li muy am daal mooy kenn moo amoon moo mooy buur de buum mi mooy Ousmane Sonko bu Ousmane Sonko bokkee ñëpp ni ngongo bu bokkul nag léegi ñu sànni ñi nga. Mmh. Euh, beneen euh, actualité di démb déclaration bu Barthélémy Diaz maire u Dakar nekkoon en allié pur euh, du président Ousmane Sonko gis nga démb wax na ci ponk yu bare bari wax na ci dialogue bi nee na initiative am la bokk na ci ñi ko démarché pour ñu toog waxtaan pour jàmm Sénégal euh, parce que nee na jàmm ci la lépp xàcc euh, gis nga ni déclaration bi mu def fas yéene jàmbaarloo ak ñi nga xamante ni ñoom ñooy les patriotes yi attaqué xalifa Sall mi nga xam ne nee na moom amnistie ak nu mu si mënti demee rek moom l'essentiel na bokk ci euh, élection présidentielle bu 2024 gis nga coow li bari woon na démb nag déclaration bu Barthélémy Dias euh, jàpp nañ ni dafay euh, su indi li ñuy wax séparation entre Khalifa Sonko Barth Sonko ban jàngeen nga si am xam nga ñoom dañu dañu woon kaañu kaañu mbéj li waalo waalo di wax kaañu mbéj moom la waxoon waa mhm. mu indi xeex ndax waa Saloum xamuñu luy mbéj daañu bees dañuy toog ñu waxtaan ñu seet euh, nu ñuy euh, lu ñu xam ci réew bi ak nu ñu bëgg mu doxe ñu daal di dajaloo muy Yewwi Askan bi ñu ñu ñun kat suñu yitte ñett la mooy gox-goxaan yi mooy député yi mooy présidence gox-goxaan yi ku nekk mun na dox parce que bu ñu gañee euh, maire yu bare dinañ xatal nguur gi gox euh, député yi ku nekk na doxal boppam ndax bu ñu gañee député yu bare euh, nguur gi dana xat waaye bu loolu weesoo nag présidence ku nekk day demal boppam biñ ko defee tamit mois de juillet bi ñu paree ci affaire député yi ku nekk commencé na wax ni damay nekk dama bëgg a nekk candidat Khalifa mhm. wax na Gakou wax na euh, Aminata Tall wax na Ah, Aminata Sakho Aminata Touré wax na. Mhm. moom si boppam wax na. bu ku nekk ne dama bëgg a nekk candidat lu tax ñu ne lu tax Khalifa warul nekk candidat ndax bu nekk candidat ñu lay ñu ñun lay ñun eh, xeex te bi ngeen àndee di xeex ci gox-goxaan yi bi ngeen àndee di xeex ci député yi kenn waxu ko woon ñu dem ba si député ba si présidence ñu ni képp ku nekk président ku nekk candidat Euh, Sonko ngay xeex kon euh, euh, jàmm loolu mënul ne wax jooju dafa dafa tëri woon ba pare. Mm-hmm. bu fekkee ne dem nañu bu fii xëy na dafa am lu soppeeku lu soppeeku mooy am nañu tiit tiitaange boo xamee ni xëy na bu ñu bàyyi woon Sonko moom kenn mu nekk candidat xëy na doole boobu muy am. Mm-hmm. dana tax ba nguur gi dana am koy xoole mm-hmm. waaye terewul mais bu fekkee ni dafa tooñ nit sosal nit. nit ki yóbbu si yoon kooku nit kooku mook Sonko la du du du mook Khalifa du mook Gakou hmm. du mook Aminata Touré ñooñu la ñuy yóbbu yoon <clears throat> bu fekkee ne yoon daf leen daan ñu ni ñii ñoo si jàpp ba ñu daan leen day mel ni bi mu ne maa jóg dugg Sweet Beauté hmm. waaye lépp lu fa lu si xew complot Macky Sall la dafa yomb daal hmm. tey ji avenir u Khalifa Ababacar Sall euh, ak tamit euh, dialogue bi nga xam ni dégg nga mi wax na si bu fekkente ni am na xalifa euh, Sall si boppam lan la si mën a gañee li mu si mën a gañee mooy euh, mu suturaam kaaraangeem ak yiwam ndax suturaam mooy moom doomu Sénégal la fii la juddoo fii la màggee def na fi teraanga ñu ñëpp xam teraanga yoo xam ne ni képp ku nekk ci nguur gi tey wala nga nekk woon si kujje gi démb euh, am nga si bu àddina demee nag mbirum politique ba ñu féewaloo ba ñu tëj ko si loo xamee ni xëy na naam yoon la waaye mënoon na ñàkk mhm. bu toogee ba xamee ni loolu war na mën a tegeeku defe naa euh, xel mën na nangu mu dox moom si boppam tànk yoo xamee ni moo koy delloo ay àqam ak ay yelleef loolu rek la foofu la toll mhm. foofu la Karim toll di daal Khalifa moo daal Karim naam xëy na Karim sa njëlbeen ba mhm. euh, nit ñi ni mu doxalee ci nguuru baayam mhm. naqari la ne woon bañ ne woon na goxi waaye ni ko xëy na Macky doxale daf tax na ba nga xamee ni nit ñi mu dinañu euh, jàppale tey jii moom nee na sénégalais la bëgg na nekk sénégalais fi la bëgg a toog mu mel ni nga mel jël Euh, makisal Sall ni ko doo dugg Casamance bu mel ni nga jël euh, sénégalais bu juddoo fii am ay sañ-sañ ak ak ak yelleef ci réew mi nga ni ko doo dem Thiès wala doo dem Tivaouane ci loo xamee ni sa coobare bopp loolu mënul ne bu fekkee ne loolu mun a teggeeku ci jàmm ndax euh, ginnaaw ay jàmm ñu ñu def ñu def ko noonu ngir yàlla kon da hmm. quelques secondes kon jàpp nga ni c'est le moment idéal pour Karim Meïssa Wade ñibbi si bokk ci élection non waroon nañu ñibbi bu yàgg xalifa euh, waroon na jotaat hmm. euh, moomaat boppam bu yàgg hmm. bu fekkee ne xëy na léegi la ko yàlla dogal na ko yàlla mottali bu jeex voilà Pathé Mbodj Rewmi FM mi ngi lay jaajëfal bu baax a baax ci nangoo tontu bi nga nangoo tontu suñuy laaj ñu lay remercier bu baax a baax ñu lay remercier bu baax a